asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi di def ndénkaane en tant que maire adjoint conseiller ak président de conseil jërë ngeen jëf te di leen ndokkale ndax siggil ngeen da place ndax askan bi à travers suffrage direct ak seeni ay le biais des suffrages indirects lépp coalition de tout un peuple mu yeeyu askan wi da un idéal d'un Sénégal de tous et pour tous un Sénégal de justice de travail de fraternité d'éthique et de morale ngeen ci dox ci xeex askan bi jox len un premier acte de confiance à travers les locales di len ñaan ak di len soññ ngeen sax ci yoon bi ngeen nekkoon bobu ba légui di xéxal ak di liggéeyal seen réew way bu leen dara fëq way bu dara seen mission yi mënuleen leen cee tedd ndax du wutukaayu alal waaye mën ngeen ci texe am ngërëmal askan bi ak fayu yàlla suñu borom bi quoi de plus tey seen mission yi comme borom kër ak njabootam bu leen nangu nelaw ba yàndoor ndax seeni ay administré am na ñoo xam ne seen bopp dafa fees ba taluñu ko bulen leen di lek ak di naan ba gàll ndax ci seen administré amna na ñoo xam ne dañuy tëdd le ventre vide na ngeen wëy saxoo di yëg askan bi di leen gestu di leen jox cër comme lors des élections na ngeen jéem a faj seeni ay soxla objectivement ba ngeen tële na ngeen liggéey ba ngeex na ngeen liggéey ba fu dara nekkul na ngeen liggéey ba yërëm seen bopp na ngeen liggéey ba ku gis am seen kersa na ngeen liggéey ba ku leen xalaat di leen na ngeen liggéey ba bu ngeen jaaxlee wala ngeen tële bu ngeen woowee askan wi ñu wallu leen na ngeen liggéey ba bu ngeen doyelee wala jeexal askan wi di leen saraxu ngir ngeen toogal na ngeen tegu ci dëgg di doxal dëgg di woyal dëgg amul xarit amul mbokk amul àndandoo askan wi rekk di jiitu askan wi rekk di mujj ci lépp na ngeen xel ni askan dafa découragé woon politiciens ñoom ñëpp a grâce aux actes posés par vos leaders vos partis votre coalition et vous-même le peuple a accepté de donner son dernier espoir sachez en faire bon usage mesurez son poids et honorez la mémoire de tous nos disparus sur le chemin de ce combat na ngeen vous vous fi que ce peuple vous soit éternellement reconnaissant Yalla suñu borom bi oyofal yan bi sàmm leen oyofal egal bi améliorer. Bon ma nature, chérie. Vive le Sénégal.